questions yi également. voilà d'accord jërëjëf euh, Mohamed. je mm. ne damay euh, commencer d'abord ci maanaam ñoom seen promesse électorale yi d'abord. Mm-hmm. parce que promesse électorale yi. fa lañ doon waxee ak sénégalais yi. tout à ñu toogee lan la ñuy def. Mm-hmm. foofu lañ doon waxee nag seen projet. Mm-hmm. nee nag am nañ projet am nañ solution. bi ñu duggee ci biir campagne bi nag ci lañ commencé di wër wax ak sénégalais yi xamal leen ñun suñu projet bi ñuy yoree ak suñuy solution suñu ñëwee rupture la ñuy indi. Mhm. ñun ay anti système lañu. bu ñu ñëwee li fi nekk yëpp dañ koy dindi teg fi leneen lu bees leneen lu bees loolu sax am yenn avancé yoo xam ne sax ñoo ngi koy jot a wax population bi. Mhm. suñu ñëwee. falu danañ supprimer caisse noire. Mm-hmm. danañ fi dindi ay fonds communs. Mm-hmm. dinañu ñëw defar suñu monnaie bopp. Mm-hmm. bu ñuy fal dinañ def ay appel d'offre ñun ñu ñuy fal dañuy nekk ay nit yu compétent parce que dañuy def appel d'offre créer ay commission commission ad tànn les trois meilleurs jox leen ñu gérer et cetera ba nit ñi jàpp loolu tey ñoom ñu ñëw mais bi ñu ñëwee lan la nit ñi gis déjà boo xoolee rek bi ñu faluwee Jomaay mu njëkk def le président Jomaay. Mm-hmm. dafa génne décret fal ministre d'état directeur cabinet. Mm-hmm. Mary Teuw Niane génnewaat beneen décret fal le ministre d'état secrétaire général. Mm-hmm. Samba Ba. génne beneen fal la premier ministre muy Ousmane Sonko. ñu taxawal gouvernement. bi ñu taxawalee gouvernement. nga xool seen première conseil des ministres. Mm. mu ñëw toog te lu jiitu loolu. Mm. boo xoolee avant loolu ba mu gañewee dafa njëkk a génn. Mm. ci benn hôtel de la place. dajale jomaay président. les alliés. les alliés waxtaan ak ñoom première jàkkaarlook ñoom waxtaan ak ñoom. Mm-hmm. ba pare xaw a développé tuuti ci projet bi pour bu jëlee réew mi li mu war a liggéey. mu amaat beneen occasion bi muy def passation de pouvoir jam ñaajo mu taxawaat encore jàkkaarloo ak àdduna bi mm-hmm. mu waxaat foofu moom mi ñu fal nan la war a liggéeyee réew mi ñu ko fal mm-hmm. mu demaat le trois mu jàkkaarloog nation bi encore mm-hmm. fête de l'indépendance war a nekk la 4 avril mu waxaat encore ak askan bi ba mu jógee ci loolu nag def première conseil des ministres. Mm. yan décision la fa jël. Mm-hmm. décision bi njëkk damay yokk pouvoir premier ministre. oui parce que déggoon nañ ci campagne bi damay créer vice président. Mm. waaye xam naa ne loolu moom bañ ko waxee am na ay rumeur yu dëkk. Mm. ndax nag amoon na lu fi xewoon na touche pas à ma constitution amoon na fi. Mm-hmm. boo fi ñëwaatee bëgg a touché nga xam ne ñu fi nekkoon démb ñu ngi fi ba tey. Mm-hmm. nga ne nañ yokk pouvoir du premier ministre damay wàññi train de vie de l'état damay supprimer HCCT supprimer CSE conseil économique social environnemental mm. ma xool loolu est-ce que comme tey ni ñu ko waxee projet bu taxawee mm-hmm. nga teg sa nga def sa planification mais soo ñëwee tey ñu fal la mm-hmm. da ngay jàkkaarloog askan bi war leen fii laa leen fekk. Mhm. fii laa leen di jëlee. ci point A. Mhm. yóbbu leen fii ci point Z. Mhm. mais su ma leen fay yóbbu nii laa leen fay yóbboo. dans un premier temps. ci vision bu claire. ci vision bu claire vision bi ngay décliner. pour sénégalais yi seen xel dal ndax dañ la fal. sénégalais yi ba léegi seen xel dalul la. Ah. parce que waxuñu leen. benn vision mais vingt deux jours aussi ah. am yaakaar. <laughs> c'est que tellement dañ leen yàkkamti mais n'oublions pas que vingt deux jours rek lañ ci def ah. non vingt deux loolu du question du jour. dafa guñu sax weer ah. Mohamed <laughs> ma développé dafa def fii <laughs> euh. dama bëgg ñi ñuy seetaan ñu comprendre. c'est ça xam nga. c'est première première fois nga jàkkaarloog ñi nga xam ne fal nañ la yaakaar la nga am projet boo leen doon gëmloo ne am ngeen ay solution am nga ay solution mm. si nga leen xamal na leen fii laa leen jëlee mm-hmm. war leen yóbbu fii ni laa leen fi yóbbu comme ñun niñ defal PSE bi ngay wax. dañu ne PSE ne deux mille trente mm. ko app bu gudd. c'est première phase lii la ñuy def. Mm-hmm. ci temps bi lañ koy def. parce que se rappelle ba ngeen doogee ñëw yoonu yokkute moo nekkoon vision bi. li ñëwee ñu adapté léegi rek plan bi ak vision bi gën koo yaatu def ko PSE. voilà def ko PSE. Mm-hmm. ak ay axe. Mm-hmm. génne axe yi wax temps bi. wax première axe bi muy première phase kañ lañ koy def. Mhm. deuxième phase kañ lañ koy def. Mhm. troisième phase kañ lañ koy def maanaam décliner ay horizons. c'est ça. tey jii ñun loolu lañ doon xaar. Mhm. ci projet bi ci projet bi tey ñu ñëw nañu. parce que dañ na buñ toogee rek wàññi les denrées de de de première nécessité loolu la wax. président Macky Sall gis nañ ko bi muy toog. Mhm. le 3 ba muy def déclaration. dafa wax ak population sénégalais yi maa leen waxoon li ci campagne électorale bi. lii dinaa ko def le tel. Mhm. lii dinaa ko def lii dinaa ko def. et ça a été ses premières première décision yi parce que loolu moo nekkoon. Mhm. demande sociale bi. mu def ko mais tey ñoom la ñu waxoon tey. ba nit ñu yaakaar bi ñu toogee. jëmuñu foofu. Mhm. beneen bi si des nag. mooy man li jàngat mooy projet amul kon. parce que dernier conseil des ministres bi hmm. dégg nga luy Ousmane ko wax. Hmm. ma xam ne ñu ngi sàcc PSE bi PSE moo fi nekk ah. <laughs> continuité nañu am audace comme ni ko Diop waxee. Euh. taxaw jàkkaarloog Sénégalais yi. Hmm. ne leen dañu nekkoon ci rue publique bi. di wax di wax mais xamuñu les réalité de la République. tey toog nañ nag xam lee réalité li ñu waxoon mënta nekk il faut ñu tëggaat suñu projet bu dee am na. man pour man projet fantôme la ça n'existe pas. parce que tey dañu toog gis les réalités ñuy jéeg a xool solution ñoom ci xool solution lañ toll. te dañu waxoon dañu am ay solution amuñu solution parce que bu ñu toogee ba Ousmane Sonko ne ministre bu nekk. demal nga xool def benn programme. bi nga bu bu urgent bu prioritaire. bu prioritaire boobu sax ñu ngi commencé di di sàcc euh, plan Sénégal émergent bi pour projet prioritaire yi waxoon pour les ministres ñu def ko. mu ne fii ak juin nañ ko def. kon projet amul. am dara amul. bu dara amoon tey boo toogee da ngay xool sa première phase bi nga war a exécuter. nga daal di jox les président day toog jox les ministres. li war a def na leen que trois premiers mois yi wala premier semestre bi wala premier trimestre bi. lii ak lii ak lii mel ni ku leen jox. Euh, feuille de route feuille de route. bi ñu war a def mais yow da leen a demander pour ñoom ñu dem si seen ministère toog pour defal la feuille de route. Mm-hmm. fii ak d'ici juin andil la ko. nga ne si troisième semestre bi comme ni ko Diop waxee. oui suivre nañ ko. Mm-hmm. ci troisième trimestre bi nga mën a dérouler. c'est ça. kon ce qui veut dire que nañ am audace jàkkaarloog Sénégalais na leen. projet amu fi. solution amu fi. dañu toog dajeeg république bi. léegi nag ñu gis ni mu demee. Mhm. les contraintes léegi ñuy bëgg xool ay solution mhm. fii ak troisième trimestre. beneen bi si sur les nomination oui. ana lan la waxoon ci campagne bi. Mhm. appel à la candidature appel la candidature la ñuy def ci yenn postes yi d' accord ah, ci yenn postes yi. vote commission ad hoc choisir les trois meilleurs et cetera. gis loolu ñu waxoon noonu. am na tey benn intellectuel bu toog fële ëpp ñun fal ñëpp diplôme. dëgg la. mu dégg ci seen programme ñoom li ñu wax mu am yaakaar ne man sama diplôme yii. Mhm. bàyyil ma jàppale euh, Diomaye président. su gañewee bu ñu defee appel d'offre su ma demee dinaa mën a am poste tel ak wala poste tel wala poste tel. Mhm. tax mu jàppale leen mobiliser ay nit. Mhm. tey ñooñu dañuy découragé. bu ñu leen jàppale woon ngir loolu nax nañ leen dañuy bàyyi xam ne fii.